ragaluloo war l'après Macky mu metti ci yow bu ñu remplacer woon yi mu ku nekkul ma Amadou Ba kay man nee naa la ah. sénégalais laa doon avant Macky Sall et sénégalais laay reste après Macky Sall mais nag man mi ragaluma après Macky Sall di xam nga lan laa xalaat li ma Macky Sall miinal ci boppam ndax dina amaat un chef d'état ak soxnaam ni Marème Faye ni may def ak ni mel ci man mais bu dul Amadou Ba ragaloo. non lan lay non c'est-à-dire lan. ragaloo lan lay ragal bu bu bu bu régime bi changé ñu sonal la. comme lan. non ñu sonal la dal sa kaw rek comme. nit ñi far ba loolu loolu mënu ma ko tere mbiru yàlla la mais je je je suis là en face de vous je parle devant une télévision adduna yëpp ñu ngi toog di ko seetaan képp ku fi nekk nga gis xool saytu xalaat ni lii am naa ko muy teraanga. wala muy alal muy yokkute ci état la jógee dugg sama compte muy personnel muy SCI muy société muy leneen na ko état bi jël ñëw jël si ko j'ai toujours assumé mu musuma liggéey ak état assemblée nationale bi ma bokk je le seul député dama koy wax di répéter qui n'a pas de compte banque à l'assemblée aw ma que sa sama salaire dañ koy virer je suis à mon troisième mandat ba léegi sama salaire bi billetage la merci mais mais carte totale bi may jot depuis 2012 ba léegi maa ngi leen teg. utiliser woo ko. jusque là où je te parle. woo ko maa la wax loolu. lu tax mu ngi ak man j'ai le droit. mais attends dafa am lu may non dafa am lu may dox man tamit man je crée un histoire depuis 2012. je crée un lay nga ne utiliser woo ko. chaque dotation carburant les cartes son là avec moi. mais lu tax carte yëpp. mais lu tax. e dama ci am droit. ah d'accord. mais mais mais lan mais les paquets total la paquet yi nga xam ne ni Elton yi yooyu bu ñëwee moom laay may parce que loolu day jeex dafa am date bu ñu la nee un an la dama koy max te toujours je ne donne même pas à des politiciens. mais lan nga ciy jublu. loolu sama sama sama loolu sama affaire la may mun jotagut ba ma koy wax bàyyi ba histoire bi may créer bu jotee naa wax Sénégalais lii lan laa ko doon doyee. d'accord donc ce dernier mot. et puis encore di di gërëm toujours Macky Sall ci. ginnaaw yàlla ak yonent bi lim ñu defal. Lamtooro Bourgade. Lamtooro ci biir ak ci biti <laughs> créé ma politiquement en toute pièce jàppale ma yërëm ma amal ma njëriñ bëggul ma mer defal ma lu ne kon kooku mënuma ko fay.